Timber taxaw seetlu. asalaamaaleykum mbokk internet yu euh, Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu ku nekk foo mënti nekk di la ne jàpp loxo su fekkente ne mënul nekk yi tamit ñu jotali leen suñuy kàddu si ni mu gën a rafetee euh, ñu ngi leen di euh, dalalaat jàmm si émission bi nga xamante ne nii moom mooy taxaw seetlu. taxaw seetlu na comme ni mu koy defee saa su nekk di dugg ci ay thèmes yu bari di ko développé ak ñi nga xamante ne ni ñoom lay àndal ci émission bi euh, tey nag si sama ndeyjoor maa ngi ànd ak ki nga xamante ne ni ñu ngi koy wax Lamine Fane Lamine nuyu naa la. fay naa la bu baax monsieur Niakh ñoo ngi nuyu tamit suñu mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ngi suivre Sénégal TV. jërëjëf euh, Lamine su ma fa jógee ma dem si sama càmmoñ ñuy soxna si nga xamante ne ni miin ngeen ko bu baax borom kër jéeg ji ak ki nga xamante ne ni moom mooy madame Thioy euh, Fat Bintou Diakhaté nuyu naa la. Ousmane maa lay fay di am ci dalal bi ma dal sa plateau di nuyu internet yi seetaan. jërë jëf euh, ñu tàmbali nag dugg ci li nga xamante ne ni moom mooy euh, thème mu jour bi tey thème bi teg tey ñu ngi koy wax li nga xamante ne ni mooy kaaraange boo ko waxee si nasaraan muy sécurité su ma nee sécurité sax si la lay dem. jërëjëf Moussa Niang sécurité buñ ko waxee mooy lépp li nga xamante ne tey buñ ko tegee si société bi. ñëpp dinañ mën a dund dund boo xamante ne dund bu dal la yaakaar naa tamit loolu bokk na si li nga xamante ne tamit tey loolu lañu war a njëkk mën a taxaw laata ñoo tal leneen kon sécurité am na njëriñ njëriñ boo xamante ne di si société bi mais tamit laata mooy yegg si si société bi tey ci biir kër gi tey war nañ fa samp loo xamante ne mooy sécurité di kaaraange. ndeysaan lamin mu ngi dugg si euh, sujet bu nga xamante ne sujet bu am solo la te mu ngi développé aussi lu am solo euh, sécurité.

Euh, mi ngi mel ni dëkk bi am fa yi euh, xeex bu metti bi ñoom instant yi amuñu sécurité ndax ñi kenn mënul génn ngi leen di buntu nekk bu ngeen déggee ñii di wax ngeen xam ne ay professionnel ni kàddu gi di demee di cawantee di dem di dikk nga xam ne ñii miin nañu vraiment li ñuy def macha allah euh, ñu ngi nekk si introduction bi sécurité nekk na lu nga xamante ne nii lu yaatu la lu yàlla waaye ba léegi rek sama xel day dem sa lu góor ga waxoon mu ne lépp lu nga xamante ne nii waaye yëkkati na ko bu fekkente ne ni jàmm amul di ko teg ba jàmm amaat nga daal di say nekk mu mel ni wax na sécurité dugg ci nag ay fàttali yu bëri man fa ma yaakaaroon dafa mel ni que maa ngi foogoon fi nga xamante ne nii mooy fa ñuy reyantee rek la yem ndax sécurité si dóor ma ak ma protéger sama bopp foofu rek la ndax am na leneen lu nga xamante ne ni dafa ëmb sécurité. sécurité yaatu na yaatu boo xamante ne tey buñ koy wax rek dañoo yaakaar ne tey benn xeetu violence boo xamante ne boo amee loolu mooy insécurité ñun am na lu ma la yéenee jàmm rek lolu mën naa ne sécurité la parce que sa xel bu dalé tay man mi maam bidda tay bu mo léré ne yéene na ma jàmm rek sama xel day dal kon amna sécurité fuma tok kon jëflante bi nga xamante war nañ ko jëflante ci entreprise bi day doon lo xamante ne day rafet kon nak sécurité nekkul loo insécurité nekku lo xamante ne tay mo xew ci pays yi nga xamante ne moy arab yi ak dëkk yi nga xamante ne gis nañ ne am guerre mais dédé amna pays yo xam amna stable mais tamit bu ñu xolé yenn jikko yi nga xamante ne amu fa kon fofu dañuy jàpp ne li nga xamante ne moy sécurité bu ñu soxla amuñu ko fa. macha allah waxtaan baa ngi dem ñu ngi euh, xalam muy neex bu baax a baax a baax ndax d'accord nga si li nga xamante ne moom la Lamine wax. waaw d'accord naa ci ndax sécurité tey mi ngi mel ni comme classe bi rek am ñoo xam ne tey gis ku ci nekk yéene woo sa morom jàmm tey chaque jour yaa ngi koy fexeel kon su boobaa kooku noonu amul sécurité sécurité c'est que lu mu ëmb dafa bari euh, dëkk bi ñu nekk surtout sécurité bu fi amul du dem comme ni ma koy waxee sànq. ndax tey jii xalaatal am ku nekk ci mbedd bi tey war laa am lu mu la war a def xam nga doo génn nag foofu boo fa génnee mën na la def loo xam ne maari day taali foofu sécurité amu fa sécurité daal bu ñu koy wax dafa ëmb lu bari ndax tey jii am na démb li ma doon seetaan ci dëkk boobu comme ni ma la koy waxee sànq tey jii ñoom nekk ñu si jàmm ndax foofu amul benn sécurité génn nga gis nañ li ñuy def nit ñi foofu noonu metti na trop comme sécurité daal dafa dafa dafa ëmb lu bari te dafa doon loo xam ne dañ ko war di ko di ci bàyyi xel daal sécurité daf ko war toujours di koy bàyyi xel mbokk internet yi nga xamante ne nii yéen a ngi ñuy door a dab si émission bi nga xamante ne nii moom mooy euh, taxaw seetlu yéen a ngi nekk si tey benn thème bu am solo ñuy wax kaaraange bi maanaam sécurité man nag sama xalaat weesu na romb ñoom fi nga xamante ne nii foofu la ñuy xalaatee ndax tey kaaraanga nekk na lu nga xamante ne ni lu jafe la da ngay gis euh, lekk-lekk la nga xamante ne mooy palais de République garde corps yi taxaw taxaw mais garde ko mu am lu ñu yaakaar ne sécurité la mais mu am benn xibaar boo xamante ne ni dafay dugg ci biir kër ga rajaxi kër gi ndax sécurité yem na rek ci la am brûlement tey jii nii jafe-jafe ya nga xamante ne moom la ñuy jaaxlante mais sécurité ci wàllu waxanante lu ñaaw jaar ko si réseau sociaux yi wala jaare la ko ci feneen nga yàq kooku àddunaam dëggantaan sécurité insécurité boobu noonu. jërëjëf Ousmane euh damay delluwaat wax ci li nga xamante mom moy stabilité dal gis nga dal dafa don lo xamante tay dalay may confiance tay nga gëna progresser jëm ci kanam ci li ngay dund tay dal bobu bu ñewul rek mun naa né day jafé nga continuer légui ya nga wax ci mbirum kër yi. diko comparer ak li nga xamante peut-être mom lañu gis tay ci palais bi parce que gis nañ fo tourner ya nga gis ñi nga xamante ne ñoo ngi armé wu taxaw nga dem si benn kër doo fa gis benn soldat mais tey lu fa nekk mun naa ne mooy gën a garaaw fee nga xamante ne yaa ngi fay gis li nga xamante ne ay ñoo ngi ay soldat lañ ñu armé wu taxaw kon tey sécurité nekkul si côté ay ngàndaay kese. Mm-hmm. mais sécurité tamit war na nekk si même euh, kàddu yi nga xamante ne ñoo ngi koy yëkkati yooyu yëpp day dellu kon stabilité boobu tey nan lañ koy jàngatee stable bi man lu ma koy jàngatee mooy lenn tey dal dafa war a am dal nag lan lay am il faut que ñun suñu bopp.

palais de la république garde corps yi ñu ngi foofu noonu euh, sécurité bi foo gis romb gis am de tenue nga dem ci kër amul kenn koo xamante ne nii nekk na fa pour sécuriser loolu kër ga am dal am jàmm lan mooy waral loolu. Ousmane loolu dina doy waar ne instant yi dëkk bi ñu nekk nii am fi sécurité yombul ndax xol yi dafa xat kenn yéenewul sa moroom jàmm te imagine euh, palais bi nit ñaa ngi koy garder. ba denn ka ca biir mi ngi am sécurité bu mat moom sax moo gën a sonn ñun ñi nga xam ne ñu ngi dox ci mbedd bi ndax tey jii ku ci nekk yaa ngi toog euh, lii tiim la caméra tiim la ngay wax lu la neex dëgg ay saaga mooy keroog rek li fi am mi ngi koy ba ci moom mi ngi am lu ko kon xam nag sécurité des na te teewul na ñu koy garde ci buntu palais bi tey am nañu kër yoo xam ne comme ni ko kii waxee la Lamine am na kër yoo xam ne tey jii amuloo lépp te mi ngi am sécurité mais tey jii ku jug pour yàq rek faw kër ga joxoo c'est que ci jamono ji ñu nekk ak Sénégal pays bi nekk nii euh, pour nga am sécurité totale yombul ndax xol dafa xat pour ñu am ko du du garde corps moo la koy may du koo xam ne foo jëm mu ngi lay topp du loolu moo la koy may dëkk ndax ku la xës ba bëgg la yàq ba du yàq. ku la xës ba yàq mënuloo fexe ba bul du la yàq foofu nag la ñuy taxaw nag daal di dugg si li nga xamante ne ni mooy développement bi nag daal di développé qu'est-ce sa se passe lan moo xew lu tax nit ñi yéen teetuñu jàmm. lu tax nit ñi seen xel nekkatul si ñoom la moo tax nit ñi ay fexe yu bon rek yitteel leen via whatsapp sa facebook nga publier benn affaire bu nga xamante ne nii maara day yem si photo nit ki dagg ko defar benn photo dugal yàq àddinaam wala jël benn wax traduire voix voice am changé yàq àddinaam

indiwaat ko jàngal ko xale yi mais tamit ñu xool yi nga xamante ne wax nga ko tey dañuy gis réseaux sociaux yi li nga xamante ne tey ma am benn haine boo xamante ne jàppal naa ko bint xool xool xaw ma nan lay def ba yegg ci moom teg ko benn coono boo xamante ne dina ko métti mais ma ne kon comme am naa image am xaaral ma xool nan laay jéem a jëlee image am am nu ma ko jaxasee jël leneen ba ñaawal deram ba tey ku ko gis tey wax ko lu ñaaw tey moom si boppam commencé na tiit parce que xam na ne ñoo ngi koy teg loo xamante ne rafet taxaw seetlu. voilà donc euh, Lamine euh, sécurité. waaw euh, gannaaw ba nga xamante ne ni wax nañ mbirum réseaux sociaux yi wax nit ki nga xamante ne ni dañ koy jël dagg boppam dugal fa beneen bopp wala ñu dindi ay cëram def ko yaramu neen na fa leen di mujjee. jërëjëf Ousmane tey dafa am loo xamante ni gis nañ ko nit. ak moroomam mu am si mom lu ñuy tuddee jalousie bokku na si mu xol né mom kat tay jotul ki nga xamante ne moom mooy kooku pour mun ko def li nga xamante tay lu ñaaw la jéem a am loo xam ne dafay teg si deram mais mu xol tay am benn image am jéem xol image bi nu ko amé jéem xol xool koy défé benn montage bo xamante ne dugal ko si nga xamante mom moy réseaux sociaux yi jéem yak yàq tay tey loolu mu def rek borom bu ko gisé mun na né am na lo xamante ne dugg na si xolam. loolu xam na ne commencé na nekk ci insécurité exemple mun na def tey man mi ma jël ki nga xamante ne mooy Bintu jël image am mais ni que Bintu moom mooy wax ki nga xamante ne mooy président de la république ay wax yu ñaaw tey Bintu deful dara mais Bintu message bi yegg si na si moom automatiquement rek. bintu commencé na patiner parce que xam na ne li nga xamante ne moom mooy euh, police ak yu demee noonu ñoo ngi koy commencé di recherche peut-être di dem ci réseaux sociaux di def enquête bi fan la image boobu jógee kon xoolal lu mel noonu parce que loolu day delluwaat si li nga xamante ne moom la ñuy tuddee stable kon daan boobu man dama ko war a yéene bintu bintu yéene ma ko ñu yéene ko ñi nga xamante ne moom mooy société bi ñun ñëpp yaakaar naa si la développement di yombee si li nga xamante ne mooy suñu réew. macha allah sa wax rafet na tubaar fa taala macha allah te njëriñu kese la. Euh, Fat Bintou fan la nit di muccee. fi nit di muccee Ousmane loolu dina dina dina dina doy waar ndax instant yi dëkk bi fu mu toll gëw ma ni pour nit am fii sécurité bu doy pour nga nekk di yomb ndax dafa dafa nekk loo xam ne instant yi dafa ëpp loxo ndax dëkk bi léegi kenn mënatul tëdd ba nelaw ba yàndoor kenn mënatul a nekk ci jàmm dënn yi xol yi xat na. léegi kenn yéenatul sa morom jàmm nit day taxaw di la ree fekk na bu sañoon sotti la asib nga tey looloo tax instant yi nii de plus en plus xale yi di gën a juddu xol yi di gën a bon loolu dañuy toog di xal di imaginer di xalaat nga xam ne doo xam sax instant yi yàlla daal moo ñu mën a dimbali suturaal ñu ba ku nekk yàlla dimbali la protéger la boppam benn côté ndax bu dul loolu gëm naa ni kon dëkk bi mooy loolu kenn dootu ko da ngay gis ay xale yu ndaw di jamante ay paaka da ngay da ngay imaginer loolu nga xam ni. surtout mag yi mag yi mag mag këru diine yi nu ma la ko mën a waxee sax yooyu sax boo koy wax yenn saa yi il faut nga am. Mhm. tuuti lii daal ndax dafa metti mhm. ndax da ngay gis xale bu ndaw di jàng amagul sax 18 ans di gis ay moroomam temps yéer yàggul di jam moroomam paaka da ngay xool xol yi nit mu mun mënee am xol jàkkaarloog moroomu xale jël paaka jam ko ngay xool yow lan question bi ñu war a posé mooy lan moo nekk ci dënnu léegi nit ñi doomu aadama yi xol yi lan moo si nekk. kenn yéeneentul sa morom jàmm chaque jour muy classe muy kër yi ku ci nekk bu yaa ngi ree sa morom di ko wàññi bañ bu weex mais boo sañoon jam ko paakam day loolu nag dangay ngay question boobu xol yi lan moo fi nekk léegi kenn xamul ndax xale yi xale yi léegi dañuy màgg ñu war a def si seen sama xarit euh, kii waxoon na ko keroog euh, Samb mu ne léegi xale yi léegi seen dënn yi dañ cee war a sotti alxuraan comme tey xale judd na. toll na benn âge bi muy yóbbu ko daara ñu jàngal ko alxuraan bi wax ko lan mooy àdduna mais léegi xale day juddu mooy gën a vulgaire sax ñoo xam ne ñoom ñoo ko mag day gën a yàqu àdduna bi daal instant yi kenn mënu la wax yàlla moo ñu mën a dimbali suturaan ñu euh, ñu ñu ñu am benn sécurité mais comme bu loolu mën dina yomb ci instant yi bi ñu mu mel ni que bu fekkente ne ni defuñu loolu du yomb ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy dund si askan mu nekk mu mel ni que dañu nekk si. Euh, benn jamono bu nga xamante ne nii peuple bi dafa nekk ci waa peuple bi dafa jaaxle peuple bi dafa stressé wu peuple bi dafa nekk ci benn crise bu nga xamante ne nii crise bu doy waar la ndax nag waxoon nañu crise d'autorité waxoon nañu li nga xamante ne ni aussi mooy crise des valeur waaye nag am na beneen crise bu nga xamante ne nii crise bu euh, doy la mooy xol yi nga xamante ne nii gaaw na tàng xol yi nga xamante ne ni léegi mu ngi naxari mu wax ne loolu la ñu war a xam xool ba xam lan moo waral loolu ñu duggaat si beneen sécurité muy sécurité alimentaire maanaam li nga xamante ne ni moom la ñuy dundee li nga xamante ne ni moom la ñuy lekk li nga xamante ne ni moom la ñuy jëfandikoo est-ce que ñun tey jamono bi li ñuy li nga xamante ne ni moo ñu jaaxal man jaaxal ma bokk mm-hmm. euh, yaay yi nga xamante ne ni ñooy jur doom yi léegi ñu ngi am vingt ans ñii dix-huit ans mm-hmm. ñi à partir de seize ans maam yi léegi à partir de 30 ans yow mun nga nekk maam 35 ans mun nga nekk maam léegi imaginel éducation bi nga xamante ne ni moom mooy war si maam bi déjà yëgagul si maam bi ba mu am cër bi mu war dëgg pour mu mën a yar doomam moom waxuma la sëtam mais léegi animosité bi nga xamante ne ni moom la ñuy dund am na ñu dem ba wax ne li ñuy nàmpal xale yi xamuñu meewu lan la yàgg ñuy di dégg loolu noonu beneen insécurité feebar yi bari

ndax ñun africain yi ay cobaye lañu comme ni ñuy jële jinax yooyu noonu di leen piqûre pour xam seet garab yi fi mu non très sincèrement dama bëgg a taxaw ci lii nii parce que man sam me sama xol dafay naxari su ma comprendre li nga xamante ne ni damaa jàpp ne ñooñu loolu la ñëpp war a comprendre te bu ñëpp comprendre loolu dafay gras dama jàpp ne nasaraan yi dañuy jël comme ni ñuy jëlee jinax yi dugal leen si ay cage ñun mënuñuy jël def ñu si ay cage mais dañuy ñun nous les nous les servons de cobaye est-ce que am na ko ànd ak man si li ma développé lan. Euh, jërëjëf Ousmane euh, bii nga mujjee dugg nii <clears throat> daf ma gën a neex bu baax a baax parce que dama si yëgaat ne ñun. Euh, ba léegi daa am foo xamante ne fa la ñu ñun bu ma ko waxee du ma a Sénégal kese mooy africain fan yi si ginnaaw ñoo ngi déggoon ay rumeur ceeb boo xamante ne mi ngi fi xamuñu nuñ ko defaree mais mi ngi dugg Afrique noo xamante ne te yaakaar naa ne loolu bu ñu ko xoolee du baax si suñu sécurité mais tamit ñun ñi nga xamante ne ay africain lañ du ma ne du delluwaat si ñun dëgg-dëgg sax de xëy na mais suñuy autorité yi complexe bi nga xamante ne am nañ ko. si kaw si ñi nga xamante ne ñooy yeneen autorités yi ak ñi nga xamante ne noonu lañu war a liggéey ak ñoom wala ku ñu ak ñoom loolu lañu war a imposer incarner dafa des kon ñun day mel ni bi ba léegi Afrique lañ koy continuer di xëpp léegi li nga xamante ne mooy lu baax li ñoom ñu jël ko yóbbu ko si seen bopp te boo xoolee ba léegi loolu mooy politique européen yi léegi ñun nag lan mooy suñu politique ñun nan la ñuy def ba protéger li ng xamante ne moom mooy suñu société beneen bi nga wax. muy lu am solo parce que xam nañ ne base dafa am solo euh, ma koy joxaat beneen conseil suñu mbokku jigéen ñi tey boo amee doom yaakaar naa ne xam nañ tey yow sa ween euh, meew bi nga xamante ne njëriñ la am war a dem ci doom bi yaakaar naa période boobu doom ji sax image yu mu lay jox euh, ak yi nga xamante ne mi ngi daw sa digganteeg sa doom dafay doonaat beneen mbir boo xamante ne daf lay yokku tey xale bi amaat amul ci yow yow sa amul gën a yokk ci sa doom mais malheureusement il du peut-être sa temps mayatu lako ngay di concentré wu lu yadu ci sa dom xey nga nampal ko que paré ci défar ko ben biberon bo ne bi lan la mais mais peut-être meew bëy peut-être meew nag la peut-être tamit mën na lu gëna mais yow gis nga ne na nga ko jox ko sa mais est-ce que ngeen yaakaar ne loolu du def effet bi parce que heure boobu xale bi mi ngi màggaale ak benn cerveau esprit boo xamante ne tey loolu la war a màggaale parce que xale boobu est-ce que kon bu màggee du yor euh, maanaam euh, ani boobu nga xamante ne moom la doon nampee meew te xam nañ ne li nga xamante ne mooy rab seen xel tollu kon loolu yëpp dafa baaxaatee autorité yi ñun suñu bopp tamit ñu surveiller waat yu mel noonu kon dama lay bàyyee kàddu bi rek nga gën a yaatal. mu mel ni Lamine dafa wax ne l'heure parce que.

ndaxte da ngay gis sa sa xale yi léegi yoratuñu xol na xol naturel xol plastique lañ yor ndaxte da ngay imaginer ñu sa doom war koo jox sa lait comme ni ko kii waxee Lamine nga dem ci pharmacie ñu ne la bii baax na tubaab yi ñoo yàq benn côté ndax da naan la da nga naan damay liggéey xam nga dem jënd nee nañ meew bi baax na su ma ko joxee sama doom comme meew naturel loolu mënu nekk loolu ay ay ay ay dóor la ñu baal ma ci wax ji ndax tey yi ween bi jógee si yow sa ku jigéen ki loo xam ne sa sa ci yow lay nekk nga jox ko sa doom tey ji am na yow nooy mel sa doom mën na mën na la jël yenn saa yi nga dégg ñu ne yow sa doom yow rek la nduru loolu dafay am mais tey waruñu dem pharmacie ñu jaay ñu benn meew bi ñu jël xóoyal def ci biberon am na xale yoo xam ne ba ni ñuy amee deux ans et demi ñu leen di feral meew boobu la ñuy jël di ko naan xale boobu tey imaginer bu màggee du yor xolu nit xolu plastique lay yor mën na jël nit jam ko paaka te du ko tay ñu naan lan moo xew lan moo xew sa yaay di yuuxu dem fii da fekk na yow yaa ko teg tey jii euh, maam Abdou Aziz Sy danaan wax jamono ci ginnaaw bu ñuy dund danaan wax naa jamono ngi ñëw euh, mbalitu tubaab yi ñu ñooñu moom lañ ñuy wàcceel fii nii te loolu moo am tey tey da ngay gis conteneur yi ay sagar lañ ñuy indil ay lu nekk la ñuy indi di ko jal fii duñ ko jaay tey jii boo sa xel demee ci wax boobu da ngay da lay leer loolu moo am tey loolu la ñuy dund tey jii Ousmane. ndeysaan mu nekk loo xamante ne lu tiis la lu doy waar la xool naxari na. Fat dafa wax ne tu poses la question mu nga taxaw sa kanamu seetu nga naan lan moo xew mu ne la nga dem sa xarit nga ko lan xew la effectivement l'heure est grave maam Abdou euh, si vingtième année bi euh, ñu ngi ñaan yàlla tax ñu si barkeem yokk leeram euh, vraiment yóbbu ko ci àddina yi nga xamante ne yi la yi nga ne yu kawe la vraiment sama xol neexul parce que

Euh, Samb maa ngi lay dalal ci émission bi nga xamante ne nii moom mooy euh, taxaw seetlu. jërëjëf euh, El Hadj Ousmane merci beaucoup ci invitation jërëjëf soxna Mbène maa ngi lay dalalaat yow min nañu sa kanam ci suñu émission. jërëjëf amati nañu mbégte ak contentement di ànd ak yow ci émission bi. jërëjëf l'heure est grave. ñu ne boo laajee sa bopp. Mhm. qu'est-ce qui se passe lu xew. Mhm. nee na ba mu jaaxal la nga génn ci biti. Mhm. moom la Fatou Bintou wax. nee na nga dem sa xarit nga laaj ko la moo xew. nee na sa xarit tamit moom mu demaat janoog seetu bi mu laaj boppam lan Wow, xew. lan moo xew lan moo xew sàmm. waaw El Hadj gannaaw ba ñu dalalee ba ñu ñu di wax ni question bi pertinente na lol. ndax jamono ju ñu toll nii lan moo xew moom ku dem ba posé ko sa bopp y' problème ça veut dire que lii sama naatangoo bi wax rek soxna Fatou Bintou wax na lu am solo mu ne lan moo xew nit ki toujours olof baat dafa doy ndax ci biir benn baat mën nga cee jëlewaat yeneen baat boo jàkkaarloog seetu bi di xool nga gis sa image di reflété ci ginnaaw nga ni wax man mii ñett la yow mii mi ngi xool ci ginnaaw ci seetu bi sa kanam ñaar ak bi ci ginnaaw ñett nga ni waa yow loo may toppee yow euh, sama kii image alors ko topp la image bi moo reflété wu parce que yow yaa jàkkaarloo moom yaa ko laaj pour mu xool kon lan mooy xew boobu mooy taxaw nga ci digg bi am na ñaar ñu la top ki ci kanam ak ki ci ginnaaw xamoon na mooy def ba génn ci.

ba nga xamante ne ni suñu bopp yi jaxasoo na. damay ñëw sànq rek ci monsieur Samb lu mu wax lan moo xew pour man question bi am nañ réponse bi parce que olof day wax ne ku bàyyi sa ànd ànd boo dem fekk fa borom mu toog te ñun booy xool man je me dis ni ñun ñun daal lu ñuy wax sax dañ koo amut nag ndax xam nañ solution bi fu mu nekkee lan moo des mooy ñu def ko ndax nag ana fulla bi ñu fi mag ñu baax ñu bàyyi doon ana jot bi ñu bàyyi doon ana jomb bi ñu bàyyoon yooyu yëpp ñu xam nañ ne bu baax ne mu ngi fi ba léegi léegi lan moo tax ñu jël loolu lépp teg ko de côté ne dañuy copier ñun waxuñu ne bu ñu copier li tubaab yi di def nit ki roy fi lañ ko fekk mais booy roy da roy lu baax loolu mooy wax ci donc mu mel ni que mbenn laal na benn thème bu am solo benn su benn sujet bu amaat solo parce que mu ngi wax mbéjum kanam borom moom moo koy fayal boppam waaye nag mu ñuy fàttali toujours loolu ñuy faral di wax mu ne mbele mbele coow la ñu ne toujours dañu war a ut solution par rapport à ce que nous vivons problème yi nga xamante ne nii moom la ñuy jànkonteel mu ne amuñu sax ñun lu ñu wax parce que dañoo bàyyi suñu ànd te ànd ku bàyyi sa ànd ànd boo dem da nga fay fekk borom mu mel ni que toujours affaire bi dafay reposer wu après ñu wax ko ci émission bi nii bu ñu paree ñu bàyyi continuer wax dund beneen jafe-jafe tey moo waral li ñuy dund mm-hmm. maa ngi fàttaliku man dund naa ñaari cas yoo xamante ne nii si semaine bii la ma dikkee je me rappelle sans papa dama ko daan ëpp ba mu nelaw suis mu nelaw mhm. je me souviens ma ma ma grande fille avant-hier elle m'a demandé 5000 000. le lendemain je dit faire ma café rek muy suis pas. 5000 je le lendemain ma bëgg mu faire ma café defaral moi rek muy <laughs> ma ne waaw man ban monde la ñu nekk beneen booy bi mu war a def anniversaire am c'était le 14 passé mu ne dafa war a louer benn salle quoi salle bi 25000 la ñuy fay mu ñëw ma ne ko léegi dangay ngay xiim ataaya ba pare ma jox la mu bañ. mais imaginez li nga xamante ne nii booy yi te ils le font sans gêne quoi da lekk dañ koy def te ku nekk si wet gi mag yi lu ma doon wax mag yi ñuy wax ah yow da nga bëri service. seen yaay yi wala xam nga entourage bi quoi yow da service service mais je me pose la question dans quel monde sommes-nous léegi ñu ngi dund difficulté yoo xamante ay la comme ni ko tout à l'heure l'heure est grave affaire bi dépassé na baar bi di mm-hmm. solution sama gars yi moom la ñu par rapport ak situation yi sécurité yi tamit dem ba li Euh, euh, euh, kii kii kii kii nan la ñuy wax kii sonore. pollution sonore beeg effet sonore yeeg yooyu. dañuy waxtaan man ak yow ma wax la nga dem ne lii la ma wax mu mel ni dégg-dégg bi wala mu mel ni benn train buy romb rey ñetti xale yoo xamante ne trois mois la ñu am ndax riiram boobu noonu wala benn oto balit bu ñëw gaaree si koñ bi benn xale bi am 3 mois. mu pimp pimp pimp pimp xale bi dee wala ñun ñuy liggéey fii depuis sept mois di dégg kong kong kong kong kong tout le temps léegi sécurité yooyu nga xamante ne ñàkk nañu ko <laughs> luy luy luy luy solution bi quoi. Hmm. bon man lii solution bi comme ni nga ko waxee la sécurité sécurité mooy lan kaaraange kaaraange ci bépp fànda ndax lan jamono ji ñu toll nii boo gisee insécurité dem ba am sécurité donc insécurité.

ma am lu ma àggale mun la déedéet man itamit du ma la baal ndax man tam damaa am yeneen yitte yi may dox doxi kon ça veut dire que li xew mooy ñàkk déggoo kenn bu comprendre moroomam xam ni à cette heure-ci war na mën a def loo xamante ni du ko déranger ci benn côté ndax àdduna rendre service la toujours damay ñëw ci jàppalante la parce que nit ki boo ko jàppalee ëllëg mu jàppale la du la yàqal dara nga dimbali ko ëllëg yàlla mën naa def nga trouver même situation bi tu te retrouves dans cette même situation mu la mais tu tu tay tu bu féké tamit amna ah, tu te rappelles un jour ñewon na ñaan la xamanteni lu la may ma ma nga ni ma est-ce que tu la toppoon tu def li nga bëgg ndax soxla nga kon toujours nit bu la wéké mbam na ja wayé bu parce que tu ce qu'on appelle en français esprit de dépassement di ñëw na ñaan la bàyyi ko bàyyi ko nga ni ko ak ah, garaaw naa la ko may xëy na du ma yaaxal dara mun la jëf kon li nga xam ne moo xew muy insécurité bi ci bu ma mënee jël lu tuuti rek mooy wàllu fi nga jeexale loolu rek laa ko mën a tënkee mu di li xew mooy ñàkk euh, dimbalante bi. ñàkk dimbalante mooy li nga xamante ne ni mooy jafe-jafe bi di fàttali rek mbokk internet yi nga xamante ne ni ñoom ñooy seetaan Sénégal TV yéen a ngi ci seen émission taxaw seetlu. taxaw sedd nag tey dugg système bu nga xamante ne ni euh, macha allah sapala sécurité kaaraange ndax ça vaut la peine sama papa daf doon wax tout le temps ne ma ça va rire et laisser jéggale tey jëlale te nga lu mel ni ku déggul kilifa yi nekk ci kër yi léegi mu mel ni que dañoo dee est-ce que lu boobu kilifa yi di tënxam lu actuellement di bañ coow di masla di raay di kii est-ce que du mu indi dépassement bi parce que tey da ngay wax nit mu ne la wala nga bëgg a wax ne un doomu diw de wala un boo waxee de bu la kii un ba xëy na sa yoon nekku si yow eh toogal na la yow lijjanti sa affaire ma lijjanti sama affaire ku nekk nekk sa affaire am quoi. est-ce que du nëppal nëppal yooyu moo tax kenn bëggul def benn jéego bu jëm si kanam pour affaire bi changer même. balaa may tontu si sa question boobu rek nga bàyyi ma ma ma arrière tuuti rek parce que ci commencement émission bi. maa ngi dégg <laughs> maa ngi dégg ngay wax naan président bi ñemewul génn te amul garde du corps. man parfois sax je me dis que lépp ci xel la. en parlant de président bi ñemewul génn te amul garde du corps ñaari dof dañoo yéegoon si moto di daw gis prés avion président bi naaw rek affaire hum lu tax nga avion président bi la mu ne xam na xàmmee naa ko de avion président bi la mu ne ana ana moto yi donc comme gis na avion bi dinaaw te gisul ñaari moto topp si bon pour moom du avion président bi quoi sécurité waaw yaa ngi président président bi war te sans garde corps man ni sax ci xel la parce que peut-être sax na dox ay kenn ko la allah mais lépp ci xel la ñu ñëw ci mbirum sécurité man ni loolu li ko gën a garaaw sax mooy euh, violence verbale comme ni ñu koy wax man je préfère nit dóor ma ba may bëgg a dee nga wax ma lu ñaaw parce que loolu daf may travailler tout le temps ñëw nag ci sa question bi comme waxee nëpp nëppal bi masla bi mooy li ma la waxoon rek valeurs yi ci boppam lañ tegee de côté balaye yëpp li fi maam bi ne lañ ko teg loolu nag rythme boobu sànq ni mu ciy demee chaque jour nii lay demee man maa la wax lii noté ko bu baax a baax a baax dañu am seen i réalité bu ñuy xool si ñoom nañ xool côté positif bi

car c'est avec le passé que l'on prépare l'avenir mooy aduna sa ginnaw bu ci ñak dara lepp lu la rombon këyit gu la rombon jël ko téye nga denc parce que ëllëg dina la jariñ moy préparer sa avenir kon jamono ju toll ni jamono maam am na solo torop mais buñ topé ni ah mam fi la ko bàyyi woon maam fi la ko bàyyi woon nañ ko fi bàyyi dédé fi la ko mais amna fo xamanteni dina jar nga jéki jékki la fa mam tegoon nga xaw ko teggi mais du question ni nga euh, bàyyi jël waxi maam tek fe mais juste rek pour bëgg lu rafet parce que tey jii am na foo président de la république imaginons moom mu ñëw nekk ci palais nga ñëw fekk palais bi démo na yaquna mais ki ñëw dañu wara a palais bi tégalat ke benen tapis rouge bu nees xamni amna am keneen ku ñëw changement day am toujours ci nit ñi waxé rek euh, y a un philosophe qui disait euh, c'est Père Benfa dans Sous le l'orage de Seydou Bodian muni les champs les temps ont changé il faut vivre avec les temps

nëpp nëppal moo tax àddina dara du changé mu mel ni que yi te amuñu différence benn yoon boo déggee mbenn fi mu waxee loolu la wax nee na ku wàcc sa ànd ànd boo jóg da nga fay fekk borom mais nag du ànd bi ñuy toog parce que ànd boobu day tàng bu boobaa say taat dafay lakk quoi ànd la quoi ànd mooy yooyu nga xamante ne nii la doom bi di nekk quoi loolu moy ànd boobu la ah waxuñu ànd bi ah donc liir bu nekk bo demee si ànd bi muy nekk bo demee da ngay fekk liir bi nekk si bir ànd boobu noonu quoi mais du ànd bu tàng boobu de bu leen si toga, ah donc benen bi ma bëgg a leeral aussi mooy souvent dañuy def benn signal. Mhm. nga gis agent sagam. Mhm. taxaw buntu yi avant-hier jeudi euh, bu dama dem Almadi pour Euh, ambassade des États-Unis quoi foofu si si si si Almadi quoi ut naa xeer nii ça mais comme j'étais pas parti avec des caméramans je pense que je pensais que c'était trop risqué parce que dama bëggoon ànd équipe bi ñu dem ba foofu noonu ma ut xeer sànni ko si veeru ambassade euh, États-Unis tout simplement parce que dama bëggoon ci problème mu Burma bi ñu wax ci mais su ma demoon ak équipe bi ñu taal caméra yi def direct partout dans le monde pour ñu guider. ñu bu ñu sàndee xeer bu ñu ñëwee affaire bi image mais su ma demee foofu man rek mën nañ ma saax saaxee te du xam objectif bi lan la quoi donc sécurité bi nga gis ben agent sagam bu nek fi nga gis ben kër ñu def ben sécurité bu wane ne amna lu am ci kër bi est-ce que agent yooyu ñuy wane du signal fort kër boo xamante ne nii teg nañ fa benn agent de sécurité ça montre que y a quelque chose. xam nga euh, est-ce que du ak président yi buy génn ànd ak garde corps est-ce que affaire xel boobu ngay wax noonu sonalu ñu dëggantaan li ñu wax sunu xel. moom sonal loolu la ñu xam moo tax ñu ciy avisé wu cest dire xam nañ ne nit ñi léegi aadiwul sax ngay ñëw di ko naan defal dimbali la benn geste ngay def rek mu xam fu ngay dem raison pour laquelle kër yi ci bari surtout ñi nga xamante ni yàlla daf leen baaxee ñu am alal dañu garde corps.

mu ne enracinement mooy alors euh, li nga fi fekk nga jël ko yóbbu ko gàdd ko ànd ak li nga xamante ne nii moom mooy euh, li liy ñëw bees nga ànd ak moom bañ a changé mais toujours rek ñu ngi leen di fàttali ne euh, suñu temu tey bi kaaraange la sécurité la léegi solution moom la ñuy seet benn tey ji ma waxu sànq ne est-ce que ça vaut la peine de se fatiguer di sonal suñu xel yi di sonal suñu bopp yi est-ce que mën nañu jël suñu bopp dénk ko yàlla comme li ñuy dund actuellement nous suñu bopp yalla ku ñu ñew Nous ñu fait ñu ku mëna ñew ray ñu ray ñu jox ñu ñu lek lek go xamuñu fu ñuy joggé comme ni affaire est-ce que du dañoo wara baye ni, wala dañoo wara bind comme j'ai dit comme lu souvent ci solution wax état bi ko ñun la ñuy jànkonteel sonn nañu si sonn nañu si ñuy jox ay produits yu nga xamante ne xamuñu produit yooyu fan la ko defaree sonn nañu si ñu jël suñu di leen jox ay doom yoo xamante ne ni dañu koy naan doom yi jékki saa mel xale yi jékki saa mel melokaan boo xamante ne melokaan doy waar la sonn nañu aussi si jox ay ganaar yoo xamante ne ni xamuñu foo ganaar ganaare soñu nañu di dund si ay garab yoo xamante ne dañu ko greffé xamuñu fu garab garabee sonn nañu aussi di dund li nga xamante ne ni moom mooy lu mag ñu jëk ñu doon def daan nañu am fukki doom ki mais problème la est-ce que doom yooyu ñuy jox ñuy hésité naan dëgg la am du dëgg ñuy est-ce que du pour dara parce que am actuellement li musul am léegi lu musul am bu am solution semble pour lii am ñu lan la. waaw jërëjëf euh, amati na solo lool ci solution bi mais bala maa dugg ci solution bi dafa am lu may fàttali tuuti rek mu di ñi fi weesu woon sànq dama déglu bi may egg si tuuti ñiy wax ci wàllu allaitement allaitement maternel dafa am solo ci doomu aadama. tokkantal tokkantal te keroog semaine yee ñu weesu damaa duggoon euh, ci ginnaaw fii nga xam ne moom la ñuy jaayee ndékki ma gis benn tubaab am mbindaan yor ko affaire bi marqué ma. tubaab man noonu la ma marqué. wallaahi ma gis ko mu yor ko boo moom tubaab bi liggéeyi na bàyyi fi doom ci mu xamul dara ndeysaan ëllëg mu jox ko ci weenam mu nàmpu mais lu dul da koy jox bindaan bi nga xam ne c'était certes euh, africain la noir la mais kooku mu ngi koy yor sa sut di ko boot xamul ni koy bootee te tubaab bi dañoo am habitude boo xam bu ñuy boot fii la ñuy bootee mais ndaw si da koo boot ci ginnaaw ma xam ne ndeysaan elle n'a rien compris mm-hmm. mu boot ko ba pare téye mburu te jox ko di jël mburu te bariwul tubaab lu muy xëy lekk mburu ah, mais africain bi jënd na mburu def ci soit mayonnaise te loolu c'est dangereux parce que lekk yi ñu lekk baaxul kon loolu mu ko jox noonu muy lekk xale boobu noonu dina dem ba toll foo xamante ne day révolté wu ndax lan yaay ji bis dina ñëw taxaw li olof di faral di wax naan doom euh, bu gërëmul dina xaar gërëm ah yaay jërëjëf euh, yara nga ma fa ma war a yare hmm? macha allah gàcce ngaalaama rawatina jigéen bu demee bay sëy fi muy sëy jee ñu taaj ko mu toog ñëpp jàkkaar la moom ni ko yaa ngi sëy dañ la nga sëyi pour see fa mais waxuñu la nga yi dem seeti kon loolu noonu xale bi noonu nga xam ni dund na ko te dund koog yaay ji amul temps bu mu moom lu dul dimanche bi dimanche te bu ñëwee daanaka du ko tal day sonn kon loolu noonu yaakaar naa moo indi insécurité bi parce que révolte boobu noonu mu am noonu bis bu doon toog ak yaayam di partager di échanger di waxtaan loolu noonu mooy dem ba tax tey bu jékki-jékkee ci xelam ak xelu yaayam dina dem ba trouver solution boo xamante ni ëllëg dina bokk ci ñi changer réew mi mais tant que mu ngi am ñaar yoo xamante ni ñaari anomalie yoo xamante ni euh, biberon bi. wala lekk bi bu ko boolee loolu du musa xel mi day travailler ci kaw. ndeysaan bu boo bu boolee biberon bi ak lekk bi xel bi dafay travailler si dafay travailler si xelam da xool sa papa bu la juree. Mhm. sa yaay nàmpal la nga jël ay jikko yu bari si sa yaay ak si sa famille yaay sax parce que ween ba nga xamante ne ni moom lañ la nàmpale bu nekkee mala aussi si la gën a grave léegi tey aussi mu am beneen situation boo beneen problème boo xamante ne ni euh, ñu ngi koy jànkoonteel. Euh, xale yi bu ñu juddoo je vous parle en connaissance de cause yaay yi amuñu jot léegi dañuy liggéey ji bon bi moom moo leen di yor may wax rek ak sama mbokk internet yi nga xamante ne ni ñoom ñu ngi nekk ci diaspora bi di ñuy seetaan boo génnewulee bitim réew ñëwaat dellu ci sa njaboot mënuloo xam li ma lay wax nii affection manque d'affection dëggantaan mooy am ci diggante wayjur bi nga xamante ne nii dafa bàyyi ay doomam dem xalaat ne uti ji moom moo gën a wóor pour ñëw mettre doom yi wala njaboot bi dans de bonnes conditions gis nga di nga gis nga ñëw toog xale yi toog di lay xaaxatu wala di lay dëggat te duñu xam sax yaay sa baay yaay seen baay wala yaay seen wayjur beneen baay daw ñëw ñu gàttandu baay boobu yëkkati ko yow baay bi doon joxe jàng bi baay bi doon joxe lekk bi baay bi nga xamante ne ni yow yaa doon fay luyaas bi du ñu la considérer comme mais baay bi nekk ci kër gi ñu koy gis toujours moom la ñuy gën a considérer comme bàyyi bàyyi ba la yaakaar na sécurité bi gën a wér si njabootam mooy dem uti ji jox leen ñu lekk jox leen ñu naan jàngaloo leen ñu jël xale boobu noonu di ko teg ci benn motard wala ñu di ko teg ci benn oto ñu ko yóbbu école ba ñu ko yóbbu école du am ak kenn benn contact portable am la yor jàng li muy jàng mu ñëwaat ñu dugalal ko ci oto bi yóbbu ko ci kër gi bu ñu ko yóbbu ci kër gi jox ko ay ordinateur jox ko ay bagage jox ko PlayStation jox ko yeneen jumtuwaay yoo xamante ne daf koy couper ak monde réalité bi muy dund moom kese xale boobu noonu moom mooy jékki saa rek yor paakaam wala yor fitalam di dóor loolu dundaguñu ko carrément mais si dix ans xale yi di ñëw yàlla tere tereeti ko mais yàlla ñu si yàlla musal ragal naa mu demee noonu solution benn tey damay ñëw ci li nga wax sànq rek mooy est-ce ñu bàyyi yàlla mu defal ñu lépp quoi man dama la bëgg a xamal ni suñu borom bam ñu sàkkee wàccee ci suuf la pare suñu destin ci suñuy loxo la nekk toog toog di ko xaar loolu mënul nekk mbirum occidentaux yi nag dañuy test bu dee piqûre mbuy lu mënti doon Afrique mooy test bi fii lañ koy testé ndax baax na wala baaxul kii produit bu ñu yor bu bon fii lañ koy sànni si Afrique mooy poubelle ñu ñëw si mbirum xale yi mooy mm, biberon bi ñuy ñun man daf ma je me dit que comportement yi sax affaire nit ñi la def man dama ne man meew bi ñu di nàmpalee mooy mooy cause loolu. wax ji nag mooy loolu lépp ñun ñoo ko changer temps ñu rester ci di wax ñu jëf solution solution bi mooy ñu rester di wax ñu kon euh, mbokki internet yi xanaa rek ñu dalal li nga xamante ne ni moom mooy suñu euh, troisième euh, équipe ñu daal di nag dugg si li nga xamante ne ni moom mooy solution yi. taxaw seetlu. voilà si ñetteelu pàcc bi ñuy dalal ki nga xamante ne ni moom mooy Mame Ndiaye si suñu càmmoñ si suñu ndeyjoor miin ngeen ko borom kàddu yu dëgër yu dang yi du ko maye benn yoon <laughs> Mouhamed nuyu naa la. maa ngi lay fay sëñ Ousmane di ci invitation bi. loolu xam naa nag war nga ma cee jox. macha allah waaw gis nga euh, yéen a ngi si sécurité si la ñuy waxtaan kaaraange maanaam euh, dañu jàppoon ne sécurité ndekete doy na rek bu ñu la wëralee ak ay garde corps gars yi taxaw yow seen fital doy na ñu ne déedéet doyul léegi gars yi via whatsapp dañuy wax ay affaire yaaxa sa tur yaaxa sa àddina yaxeet nee na yamul foofu ñu jël sa kàddu changé ko waxal la loo waxul mu mel ni yaay wax nee na yamul foofu ñu jël sa kanam simbi la def la wala laaj beneen kii wala beneen leneen ngeen séq te fekk yow du yow ñu yamul foofu nee na sa lekk li ngay lekk ñu dugg si ay affaire nee na yamul foofu sa dégg-dégg ñu soppi ko wax la loo wax waxul wax loolu affaire yu garaaw a garaaw solution la ñu bëgg par rapport ak problème yooyu Mame Fatou waaw euh, solution yi si li ma si gis euh, ah. si wàllu insécurité bi mooy si domaine bu nekk muy wàllu lekk bi muy wàllu euh, pollution sonore bi ngay wax muy wàllu sécurité si wàllu environnement wàllu nit ak nit maanaam wàllu internet bi ndax euh, pour man nit ñi ñoo war a soppi seen ay jikko pour man il faut ñu sensibiliser nit yi pour man daf si am solo trop ñu continuer di sensibiliser nit ñi pour mun a changer mentalité yi parce que pour man lépp si mentalité la nit ñi seen mentalité moom moom moo moom moo yàqu léegi nit ñi ñoom ñoo amatul ay comportement wu nit parce que la nga xam ne tey jii yow bu ñu la ko defoon wala ñu def ko sa sœur wala ta propre maman wala sa papa du la neex donc waroo xalaat di ko def keneen donc nit ñi ñoo war a changer seen ay comportement wàllu lekk bi nak ak euh, mooy li ngay wax piqûre yi ñuy def euh, di ko indi Afrique et tout déchets yi ñu neen nit ñi indil di ñu gëmloo ay nga xam ne ñoom dunduñu ko réellement yooyu yëpp euh, pour man état bi moo si war a jóg nit ñi tamit jóg wax seen xalaat jéem a révolté wax ce qui se passe lan ñoom lan la ñuy dund actuellement pour état bi tamit mën si jël ay disposition parce que bu ñu toppee tubaab yi di trop benn moment dañ xaw a am dépendance si ñoom nous sommes toujours colonisés malgré que nee na ñun ñu sommes indépendantes mais ba léegi amuñu indépendance dañu dépendre de moo tax ñoom lu leen neex la ñuy def di ko indi fii nii côté euh, alimentation bi même chose dañ si war a jóg sensibiliser nit yi état bi jël ay ay ay euh, responsabilité parce que nit ñi tamit seen mentalité baaxul actuellement dañ war a si lépp lañ war a def même école dès le bas âge ñi nga xam ne ñu def maternelle dañ leen war a inculquer seen seen ay valeur ba si man mii toog man noonu laa jàngee maa ngi nii tubaab bu sotti laa noonu laa jàngee tey mhm. maternelle ngay dem ñu jàngal la way di la jàngal ay histoire France di la jàngal fu tubaab ba ya da ngay mujjee yàqu fàtte sa ay valeur changement faw am parce que monde bi day dox il faut changement mom mu am munu munu ñak parce que monde bi day dox mais aussi ñu gestu daal suñu gannaaw baye xel touti suñu ay valeur pour ñu mëna au moins ñu am luñuy ñuy am luñuy ñuy ñu am luñuy ñuy am luñuy ñuy euh, Mamadou mu melni euh soxna si euh, dugna si lo xamanteni ni lu am solo la euh suñuy lekk ñu naa ñi koy defar du ñu raxas seen loxo yi ñu nekk lan ñu koy joxe. ñoom seeni lekk ñu ngi koy jaaye si ay mini marché wala ci ay wala fale dañu leen koy paquetel di fa def leen ko directement ak hygiène bu normal ñëw ñoom bu ñu feebaree ñu jël avion naaw génn réew mi dem faju yi ñoom suñu amee ay jafe-jafe bii ñuy laal sax ñoom duñ ko laal ñoom carte la ñu yor parce que ñoo ngi xalaat laal mu laalaat mu laalante mu indi leen ay jàngoro mm-hmm. ñooñu ñoom ñoo ñu diriger ñun ñu nekk di leen déglu ba tey nekk si ñoom seen askan ñoom ñun ñuy gis loolu ñoom ak seen doxalin ñoom ak ni réew mi di demare ñoom ak ni ñuy dunde ñoom ak ni ñuy jiitee ñun ñu taxaw di leen seetaan ba tey jii nii di nekk si condition yooyu noonu bañ na ñun duñu def benn jéego bu jëm si kanam ngir loolu noonu sotti mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam solution par rapport à ça. jaajëfal maa ngi jaajëfal bu baax euh, sëñ Ousmane di bi di topp li wax dëgg la quoi mais dafa a parce que a sécurité ñoom ci monde fu mu toll nii fëpp la. mais nag nit ki balaa ngay laax jaay laax lekk parce que bu leen fàttali bu baax. saa bu mu nekk laax bu ma lekk démb dafa amee gis nga kii bi. Euh, saxal bi. alimentaire rek. waaw kooku mm-hmm. euh, bi am Sénégal a gën a defar bu baax. deux euh, suñu mbokk yëpp fii amul kenn mbokk bokk ci. mu doon lu doy waar ñu war ci jël ñun xam suñu bopp xam nan lañuy doxale ak nan lañuy dem suñu réew jëm kanam gën a sécuriser suñu bopp ba nekk nii loolu dana fi am da ngay gis tey jii nii njaga jaay dañu ci ba fekk kenn nga gis benn police moo koy bàyyi noonu mu stade Demba Diop xaw ma Ibama récemment récemment bi passé mm-hmm. insécurité mm-hmm. kon ça veut dire que ñun feneen ñun dañ koy consommer rek dem suñu yoon xam loolu tamit nit ñi war nañ ci mun a jël benn leçon de morale bu baax tamit ci wàllu solution bi nga wax solution mooy maanaam baax âge muy éducation ñun foog ñu jël suñu valeur ñun suñu maam yi jàngal ñu koy jàngal suñu doom yi di boote ginnaaw di nampare ween di xool lu lekk bu baax tamit benn affaire am na suñu jigéen suñu jigéen tamit foog ñu def seen corps vestimentaire daf ci am solo. am solo beneen sécurité nga dugal. waaw beneen sécurité dafa dafa yaatu thème bi moo doon ba am solo bu yaatu sax. Mm-hmm. te dafa am solo quoi. dafa am solo dafa am solo lool seen mm-hmm. corps bu baax. Mm-hmm. xam ne ëllëg ñooy doon suñu yaay toog suñu doom dina war a am ci condition yu baax yu mu war a nekk di boot di nàmpal comprendre nga boot di nàmpal di defar parce que xale foog nga defar ko de base su màggee tamit loolu lay nekk moom lay firi nit ki li nga tay nga jàng moom ngay nit ku nekk li nga jàng rek moom ngay firi. voilà donc mu mel ni liw bi liw bi rek ngelaw li. bu fekkente ne ni euh, dañu nekk di dund situation boo xamante ne ni ñi d'accord d'accord accord nañu ne dañoo war a delluwaat ci cosaan ba dañoo war a wax naa ko récemment te toujours nos sujets finalité bi mooy ñu dellu si mais si wax belle belle après duñu ko défend hein? mu mais que ñun aussi dañu ci am pas de responsabilité nous la presse on se fait de l'argent je t'appelle tu viens on fait notre émission

ñun euh, boo ñu takkee saret boo ñu kii ñu saret demuñu saret demuñu anyeeru ñu xamuñu lu ñu doon donc ñu ngi dund loo xamante ne catastrophe la tubaab yi nga xamante ne ñoo ñu inculqué valeur yooyu noonu xam nañ heure bi ñuy seetaan vidéo xam nañ heure bi ñuy seetaan télé xam nañ kañ la ñuy sol affaire yi xam nañu xam nañu xam nañu xam nañu mais ñun bum bum bum bum bum bum bum jaxase dóor mélangé xam nga xam ñu jànja joor yaay booy wax nga tem bu am solo nañu delluwaat. si mbanjaxaan ba noonu lañ xee waxee mbanjaxaan looloo la mbanjaxaan waaw <laughs> léegi xale yi waxoon naa leen ko trois mois six mois maximum nga commencé di waxaa sa xale si biiru ndeyam bu nekkee si biiru ndeyam nga koy jàngal àddina mm-hmm. mais fii c'est trop tard dañuy xaar ba nga am vingt ans vingt cinq ans ñu lay jubbantiwaat te banta dégg naa boo xaaree ba mu xama lan bu jubbanti ba day damm ainsi de suite Les solution bi ngeen indi mooy lan exactement comme solution lan nga andi man euh, solution bi toujours moy li nga wax sànq rek ci lay ñëw moy nit ñi ñoo wara a jël seen ay propre initiative dëkk bi dëgg la dañu am jitu réew am ñi nga xam ne ñoo ñu jiite. mais suñu pays la sa jitu njiitu réew est-ce que tanewloo ko ci xel yow. mais loolu lay expliqué. parce que sa jitu réew man giñ n'a ne li nga am nek sa xel diko ko mom moom nekkul si xelam parce que mom benen projet mo nek si xelam budul projet am quoi. parce que ñun nous, mi mhm. mi ñun mhm. ñun tax mi exister. Mhm. donc waruñu waruñu seetaan ba suñu nasaxal suñu ay suñu avenir doom parce que ñun sax déjà waxatuñu suñu wax mais future génération parfois tu te dis que ne man ëllëg nan ban doom parce que lépp ngay gis société bi tu as peur mu leer ni ñu mel nii seen ay parents pourtant ay nit yu normal lañ tu as peur da ngay ragal da ngay ragal doo xam sax en plus kenn wératul actuellement ndax li nga wax noonu insécurité alimentaire et tout tey soo demee hôpital ah da ngay gis ñu bëri cas yu bëri da ngay ñëw ñëpp dañ leen ni césarienne presque.

environnement bi pollution bi doyna war waar. garab amatul lépp kenn xamu garab amatul. gàncax gi yàq nañ ko ñun suñu bop ñu détruire suñu milieu de vie. Mhm. ñun suñu bop ñoo wara changer suñu ay comportement bala dara ndax nit bala mu lay dimbali fekk la ca dimbal na ca fekk loxoy borom. Mhm. ñun ñoo wara changer mentalité yi xam exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour ñu mën a jëm kanam. bala nga naan naam. nefa nefa ñun la wax ñoo war a changer. mais beneen liggéey la Mouhamed loolu liggéey bi kañ lay tàmbali. liggéey boobu noonu dès maintenant lay tàmbali parce que tamit ñun suñu ci bopp surtout man ndaw yi laa waxal. liggéey bi tàmbali na kon ah. tàmbali na tàmbali na. nañu mhm. éviter tey di jël ay tubaab yi ñu dëkk teg suñu kaw bopp yi surtout les jeunes parce que ma xamal leen ñaar lu politicien gën a ragal mooy que jeune ak am xam-xam. ñun ñi nga xam ne yàlla def nañ te ñun ay jeunes nañ jóg suñ jógul suñu bopp teel a wàcc bopp xam ne ñun ñooy am soxla ñun ñooy am ba ay ay kër ñu teel a waajal suñu bopp. Mhm. jéem a xeexal suñu bopp ba tubaab lu muy ñëw di ko fi indi ñu na lànk du fi amee mais balaa boobu nag foog ñu am ñu xam ñoo mel ni ñun ñu jël leen teg leen suñu kaw ñu suñu njiitu réew ñu xam lii danger la jiw lii danger public la su ñëwee day yàq population bi.

sama xel dem na ci sécurité maritime. Mhm. parce que tamit géej gi mhm. mool yi tey amatuñu benn jën. exactement euh, boo demee Mauritanie au moins ñoom ñu ngi def sécurité ci seen géej gi ba tëj mais fii nii suñu côte bi. y a plus rien. y rien du tout nga baal ma mooy euh, suñu problème fee baal ma tey ñu ngi am centrale au charbon foofu noonu. ñu ngi ko bëgg a taxawal gaa yaa ngi xeex mais problème bi mooy li nga wax léegi rek ñoom seen intérêt personnel la ñuy xool su fukki nit di gas fukki nit di suul fan lañ jëm ci àddina mooy li nga wax tey ci dañuy am euh, euh, dañu war a mën a xool suñu suñu suñu suñu géej war ko mën a tàggat ngir ñu mën a am lépp li war mën a am ay jën mais actuellement géej gi dara amatu fi parce que état bi day jox ay licence à des à des étrangers ñu ñëw indi seen ay bateau def prise abusive dañuy yàq géej gi jël li leen ñor li si des ñu sànniwaat ko mm-hmm. fekk na c'est trop tard c'est trop tard si kaaraange la ñu doon waxtaanee muy sécurité l'heure est grave dañoo titre dañoo jaaxle parce que li ñuy dund tey mucc na ayib euh, raglu na ndax kat nous mourons à petit ñu ngi dee ndànk ndànk ndànk te xamuñu fan la ñuy deewee AVC ñëw na gagné na terrain césarienne ñëw na liiri prématuré yi ñu ngi fii àll bi pollution bi doy na waar gàncax yi dagg nañ ko. ñu ñu koy liggéeyal du nee nañu nasaraan yi société yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu si bopp bi diriger société nasaraan yi lay nekk donc nasaraan yi moom ngeen ñëw nasaraan bu ñuul bi moom nga ñëw nasaraan bu xeex bi moom nga ñëw da ngaa génne woon si bunt kër bi nag ñu foog ne dem nga nga wiir yi dina jaar si porte bi daal di tëb si fanateur bi ñëw dugg nag installé waat sa deuxième ñëw bi moo gën a garaaw ni nga ñëwaatee moo gën a garaaw da nga nax noot ñu noot suñu askan noot suñu xel Non suñu kàddu non suñu jëm non suñu yoon non suñu tali non suñu xam-xam non suñu dom non suñu bëgg-bëgg non suñu askan waaye nag yàlla moo la ëpp doole fuuf ñi nekk ci salle bi tey y a plus de 30 personnes qui sont là l'avenir vous appartient yéen vous êtes le monde de demain relevez le défi ngeen jóg taxaw xeexal seen askan ni mën a dem dañuy génne bu danger amee ñu dem bàyyi leen si réew mi yéen yéen a fi des ñi leen diriger saa yi bu mettee ñoom dañuy jël avion dem bàyyi fi yéen ngeen nekk yéen ñooñu mooy ñi ngeen fal def leen président pour ñu taxawu leen ñoom ñi ngeen fal def leen ay député pour ñu layal leen ñoom ngeen fal def leen ay ministre pour ñu xeex ci seen jafe-jafe waaye yéen yéen a gën a leen leen wax son excellence ñoom ñoo nekk si oto yi am ay chauffeur am ay gasoil yoo xamante ne ni am am am am am am am am ñoom ñoo dëkk si almadi bi ñu nekk nii tey jii nii yéen nag à quand votre tour su fekkente ne ni am nga looy conclure soxna si. waaw waaw li may conclure rek mooy li nga wax léegi nii ñun ñoo war a jóg si suñu bopp jël suñu ay matukaay. comme ni nga wax parce que tay lu mu metti metti metti li ñuy wax rek chaque jour ñàkk baadoo la moy cimetière bour lool mo fi nek ñi di am ñuy continuer di am di dox ci kaw ñi nga xamne tay ji ñom ño ñak di continuer di ñak ba faw donc ñun ño wara a suñu bop xam suñu réew lan lañ ci bëgg ak fa lañ ko bëgg jëmee ñu changer comportement yi pour mëna jëm kanam. andi naa proposition mooy ñu def pétition ñu bind dem fa li nga xamante ne mooy palais de la république ñu wax ne li ñu waxtaanee tey ci suñu émission taxaw seen Mohamed Samb waaw pétition boobu noonu noonu man sooy def pétition bi man maa ci aussi parce que ma jiiteel ko parce que mënu mënuñu ñun en tant que jeune nekk fii ci réew mi tey ji nga xam ne taux de chômage bi ñun la gën a laal fu mu toll nii Sénégal métti na métti na doy na trop te fu mu toll nii solution bi mooy kan lan ndaw yi doon jóg fexe rayante xeex ba lii di jóg fi parce que lii fa mu jóg fi ah su fi jógul duñ dem feebar yi day gën a yokk nit ñi gën a sonn. comprendre APC di gën a rey comprendre satérien di gën a rey lii la rek nañ jóg xeex il est temps waaw. il est temps nañ jóg xeex kaaraange lañu doon waxtaanee tey ñu koy wax sécurité sécurité nag sécurité nag lanu ko foogoo ndekete weesu na ko ndekete sax gën a yaatu sax li nga xamante ne nii moom la ñu débattre tey émission bi du fi yam day continuer ndax ka njëriñu neen la xanaa nag di tënk ni fi rek. di fàttali internet yi nga xamante ne ni ñoo sopp Sénégal TV di ko safoo seen xarit Ousmane Niankoji moom moo àndoon ak tey ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ay naataangoom si parti bu njëkk bi ànd na ki nga xamante ne ni moom mooy euh, Fatou Bintou euh, Diakhaté euh, ki ki mu ci àndaloon di keneen ki kanate la woon ah voilà Lamine Fane si ñaareelu pàcc bi ñu àndoon na ki nga xamante ne ni. moom mooy Abdoulaye Samb ak ki nga xamante ne ni moom mooy Soxna Ben si ñetteelu pàcc bi ñu ànd si ak ki nga xamante ne mooy Ndeye. Maam Fatou Ndiaye Maam Fatou Ndiaye ak ki nga xamante ne ni moom mooy Mouhamadou Samb le combat ne fait que commencer dañuy door a door asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. The house Tahoe low.